rafetlu seen ànd ak seen télévision Bambey 24 bisimilah ci xibaar yi ñeel ay bés bi. li ci bokk te gën caa fees bokk na ci joxante lenge yi nga xam ne waroon naa am ci fële ca meeru Bambey diggante Gana Mbaye fi nekkoon maire ak te ki nga xam ne moo lañ fal yees di euh, Assane ja loolu nag mujjul am di ko waral mooy ki nga xam ne mooy Gana Mbaye mujjul teew jotaay lee bu ñu sikkandoo ci nga xam ne ñoo ñoo jege Assane Dia ñoom li ñu jàpp mooy kii di Gana Mbaye dañ kaa ba sonn mu ñu koo jot ba tax sax euh, ci biir bureau ba am na ci yenn ay tiroir yoo xam ne dañ kaa euh, jot a dajji li jëm ci wàllu njëkkee dund gi dañ koy yokk yokk mit lool ñoom ñooy borom kër yi sonn nañu loolu bay sax woote wàllu ci gouvernement bi ñoom daal nee na fi mu ne nii président Macky Sall war na ñëw wàllu leen donte sax nag nee neen dañoo wàññi njëg yi waaye fii ci doon Bambey moom njëg yooyu daanaka euh, kenn sant ko fi fii Bambey ba tey ak di ko wër ñi nga xam ñooy liggéey ci waa kër docteur ñoom nag li ñu mooy dañoo sonn lool ndax dañuy faral di leen fitnaal di la bu xaraa ci seen euh, liggéey bërëb bi nga xam ne fa la liggéeyee ñoom nag loolu dana métti ndax nee neen euh, seen ndabu muñukaay dafa fees dell ak ñoom ñu koy ŋàññ bu baax a baax li ñu bëgg sax mooy ñu jàppale yéen koo xamante ni dina mën a wattu seen karange foofu ci seen bërëb liggéeykaay ci wàllu li nga bu yees tàq euh, euh, boo xam ne nag football lay doon waaye nag li nga xamante ni que moom mooy ma nga fa woon ak nit ñu bëree bëri kontaan loolu ci stade boobulee stade boobu nag dina sax mën a dalal di toll ci euh, juróom fukki junni ci ay nit ci stade boobulee ba tax na nag ñi nga xam ne yëngu ci wàllu football dañ cee kontaan loolu loolu li nga xam ne moo jëm ci wàllu ganu kër gi nañ daal nga xam ne mooy euh, Gana Mbaye nekkoon fi maire bu Bambey moom nag euh, daal daal mi ngi li nga xamante ni moom mooy li Assane Dia def ca bureau boobule ndax neen dañ ko woon a woo waaye itam àdduna jëmale ci kalaam yi nga xam ne kalaame woon na ko euh, bëgg nag d'accord dal ci résultats yi yoo xam ne moom la Yewwi Askan Wi amoon ni dikk ci yaatu yaatu ab digganteem ak Babacar Diouf mbokk yi li ab takk la ngay nes gis ma di ko yéen ci faram-fàcce gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. leen sant di leen gërëm ci seen ànd ak seen télévision Bambey 24 ñëwaat ak yéen ci li xam ne mooy soxal ay bés bi ci wàllu ay xibaar fële ca meeru Bambey fa lañ koy tàmbalee foofu nag amoon na ay réew ci diggante meeru Bambey bu fi nekkoon di Gana Mbaye ak ki nga xam ne mooy Assane Dia li ko waral mooy dañoo waroon a amal lii di euh, joxante lengee waaye ci mujjantal ga kii di Gana Mbaye mujjewul ñëw ca jotaay boobule ba tax nag euh, ki nga xam ne mooy Assane ja moom jàpp na dafa war a liggéey ndax euh, loola waa ñi nga xam ne ñoo jege wax wax bëgg liggéey liggéey moo tax il faut ñu ñëw ci bureau bi xool la nga xam ne moo fa nekk loo tax ñu dugg ci biir bureau bi nag am ay yenn ci tiroir yoo xam sax dañ koo jotoon a dajji ngir nag mën a euh, door door li nga xam ne moom mooy euh, liggéey boobulee di gën a leer dañ ci fekk nga xam ne mooy Malick Ngingue ñoo ci joxe boo ñu teewal ko ci altine bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru février 2022 lañ doon xaar jokkalante léegi diggante Assane Dia maire bu Yees bu Bambey ak Gana Mbaye gi fi nekkoon jiital bokk moomeelu Bambey waaye nag mbir ma mu yuta antu ndaxte kat ki nga xam ne moom moo fi nekkoon maire bu moom daal teewul ca ndaje moomulee xibaar yi jot daal lañ ñu wax moom moo di fukki fan ngi ñu koy woo jotuñu ko moom ak ñi toftal woon ci moom lee tax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo bu Assane Dia ak maire bu yees bu Bambey daal di teewoon te bërëb ba ne dañoo bëgg liggéey ba tax na nag génn ay bërëb yoo xam ne nekkoon nañ fa te ñu tëjoon leen ci ay caabi ñu daal di koy dajjee ñu dajjee bërëb yooyu sax am na ay kayit yoo xam ne jëlee nañ ko fa waaye nag am na ak koppar goo xam ne buñ ko xaymaa toll na ci téeméeri junni ci xibaar yi mujjee jot ndaxte nag ba ñuy dajji ak ba ñuy tij foofulee ñenn ci jege ñaaneel maire bi dañoo lànkoon ne benn journaliste du fa filmé waaye nag firnde gañ ca di am rek rek moo di mbir ma mu nga amee fi benn teewaayu huissier boo xam ne mu nga doon xayma koppar ga ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ñaata la toll ñoom ñi nekk équipe bu bees bi wéyaloon nañu seeni lañ bëj ci biir bureau yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mairie bu Bambey ngir xool naka la ñuy tàmbalee seen ab liggéey ndaxte nee nañu bañ leen installé ba tey dafa yàgg te dañoo bëgg a tàmbali liggéey. jërëjëf Malick ñi nga ñu wax ci leneen wax ci nga xam ne nag mooy njëg nga xam ne njëgi dund gi dafa yokk lool lool ci Sénégal gi waaye nag fii ci daanu Bambey moom ñoom jàpp nañu sonn nañ lool ba tax sax ñi ngi bëgg nag euh, ki nga xam ne mooy seen njiit di Macky Sall dimbali leen ci njëkk loolu lee mën ko wàññee donte sax ki nga xam ne mooy euh, jiitu réew Macky Sall moom nee na am na yenn ci yoo xam ne wàññi nañu njëg li ci wàllu diw euh, suukar ak yu ñu demee waaye daal fii ci daanu Bambey bi ñu joxe tàll micro yi nga xam ne ñoom ñooy banu kër yi li jàpp mooy fii ci yi daal daanaka njëg yooyu ñu wàññi ñoom day yëguñu si dara dara ki nga xam ne moom mooy mu njaay di na seet leen di teewlu tàyyi na réew moom am na xaalis xanaa daa jaare ko tey waaye li ñu ñaan yàlla mooy lépp lu fi seetlu nañu wàññi te ñu jóge fekk jàmm ak salaam waaw metti na moom metti na moom lool ci ñu metti na moom boo fa metti di yem ci borom kër yi la mett la gën a metti surtout góor ñi góor ñi moom moom it doy na waar lool mais nag ah yàlla baax na ma ne ko yàlla baax na waaw ñu ngi sant daal sant nañ yàlla comme que moom boo jëndee rek ñu delloo la weccet yàlla baax na waaye bu ñu dimbale woon mu baax lool lool ndax seer na daal seer na ba fu ñëpp heure bii lëjum da daan am mais ren moom gisaguñu dara lëjum moo gën a seer waaw heure bii moom loo defoon am lëjum mais légume seer na lépp seer daal dala yomb ma ko dara yomb ñëpp seer daal. yi seer métti na ko waaye man itamit ma ka gisaguma ko wax dëgg yàlla suukar su wàññi moom ba ma xëy soo ba tey jënduma suukar donc gisaguma suukar su ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ñi nga xam ne ñoo fii ci Bambey ak li ko wër yëpp ñoom daal li ñu jàpp mooy waa kër docteur ñoom daal leen di fitnaal seen bërëb liggéeykaay yi ñoom nag muut na muñ lu ni mel ndax rek euh, fitna yooyu métti na lool bi ci mujj sax mooy nga xam ne mooy kër Samba Kane ko foofu tamit am na ñoo xam ne ñu fi doon fitnaal ci waa kër docteur ñoom ñu jàpp daal mooy loolu mootu la woy il faut ñu jóg ci moo tax ñu koy euh, naqarlu lu ñu bëgg sax daal mooy ñu indi leen koo xam ne sax dina mën a atu seen euh, kaaraange ki nga xam ne mooy Babacar Diouf moo woon ci seen ndaje ma ñu teewlu ko ànd ci ak Ndongo Ndiaye dañ leen di faral di toroxal yenn saay sax ñu leen di agressé agent de santé yi nga xam ne ñoo nekk ci département de Bambey de tiit nañu lool ci seen kaar ci poste de santé bu ñu tuddee Kër Samba Kane mu am lu ñaaw lu fa xew paju si li ñu njëkk laaj mooy na ngeen ñu dalal jox ñu gëdd gëdd boo xam ne ñun ci la ñuy yëg ne sax suñu genn wàll feebar dañ na waa ñun xanaa ñun yeewuñ gëdd boobu ñun lu ñu nit dell lu ñu nit jox ñu delloo la ko fukk ku ñu jox ku lebal ker ñu fay la guddi bu dee nag nit ñi dañ ko bëggee nii agent de santé rawatina ak sage-femme yeeg nangam di dóor suba ak guddi fekk si kër yi di sànni xeer di tëmbal di nangam lu ne ah ñun am moom moom nañ suñ bopp. danañ bàyyi liggéey bi danañ paralyser système bi lépp lu jëm ci wàllu wér yaram danañ ko taxawal fii ci Bambey. ñaanuñ ko yàlla nag waaye bu ñu taxawul ci li saafara mbir yi fa lañ jëm ak ñoom tojate ko. li ñu bëgg nag mooy structure de santé yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan bi fu ci nekk ñu teg fa benn agent de sécurité de proximité ndax muy sàmm seen kaaraange. bëri bëri na ay nit ñoo xam ne ñu ngi fi ñu dénk leen wàllu sécurité. ñu ngi ci bërëb yoo xam ne xëy na daanaka lañ fay liggéey sax amut sens wala am na sens entre guillemets waaye am na fu ñu leen gën a soxlaa nañ ñu fexe indil ñu ñooñu ci poste de santé bu nekk ñu mën a ñëw liggéey ngir am sécurité. ñëw liggéey. ñu fàttali ne benn agent de santé boo xam ne ni mu ngi liggéey ci benn structure de santé bu nekk ci Kër Samba Kane aw askan ñoo ko xërtal guddi. fekk mu doon faj koo xam ne nii dañu ne dafa sàcc alalu jàmbur. des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram euh, nga xam ne moom mooy campagne vaccination di ñàkk yi nga xam ne moom la ñu jagleel feebar bi di feebaru lafañ moom nag tàmbal na ni ki ajjuma bi ci Sénégal gi yëpp euh, ki nga xam ne mooy nag Bambey 24 tal na microm dugg ci askan wi laaj leen ndax ñoom ñi ngi wéy di euh, sàmmanteeg ñàkk yi nga xam ne mooy ñu war a ñàkk seen doom yi lee ni ko noonu itam ndax ngi ñàkk feebar bi nga xam ne ngir aar feebar bi nga xam ne moom mooy poliomyélite di feebaru lafañ loolu nag da tal ci micro dañ ci ànd ak ki nga xam ne moom mooy euh, Maguette Thiaw ànd ci ak Ndongo ci caméra bi. gannaaw ba kuréel bi saytu wàllam wërgu yaram dajee ci lancement vaccination poliomyélite doxantu nañ seeti waajur yi ba xam ndax ñu ngi respecté carnet vaccination wu xale yi. ñu déglu ci ñenn ci ñoom. naa ko nangu parce que feebar bi taay dafa bari ci xale yi waaw naa ko def moom parce que moom da leen aar moo tax il fallait ñu def ko mënul ñàkk. dama yaakaar ne lépp loo xam ne lii day aar xale ma yaakaar ne di aar doomu aadama. pour man baax na man loolu laa jàpp loolu de moo tax man ñàkk naa samay doom. li si ëpp si waajur yi duñu nangu di ñàkk seeni doom kii di Marème ñu fekk ko si marché bi muy jaay mu ngi si yee moroomi soxnaam yi. ah man de bu ma sañoon ñu ñàkk seeni doom parce que nit du jël bon di ko def ci xale nit du jël lu bon it di ko def doomu aadama kon nag di ma jàppee ne baax na pour aar njaboot gi la moo tax ma yaakaar ne baax na man daal jàpp naa ne baax na. bëri na borom kër yoo xam ne nii wóoluwuñu ñàkk yi ba dañuy sax aaye seen soxna yi ñu yóbbu seen doom yi pour ñu ñàkku kii di monsieur Mbodj ñu dajeek moom muy sensibiliser waajur yi góor yi. dinaa ñàkku te ku ma def maa ngi sama kàddu te ci sama kàddu dinaa ñàkk ndax ci institut laa nekk boo xam ne bii damaa lekkoon ci ministère de la santé kon xam nga ne xam naa lu bari ci li may wax. waaw bu dul njàng sax war na mën ne ku nekk ci ministère de la santé rek te bérébu fajukaay la war ngaa mën a xam ci li ngay wax dara. te polio bii réalité la boo xam ne bii mi ngi lor mi ngi yàq. xanaa rek ñuy ñaax waa jur yi ñu yombalal ñii di xam ne ñooy waa kër docteur ba ñu mën a aar gone yi ci feebar bi ñu naan poliomyélite. jërëjëf Maguette ñu wax nag ci wàllu jàng ak jàngale ndax xam ngeen ni fii ci daal Sénégal. Euh, yàgg na lool ay weer a yi nii ñi nga xam ñooy ndongo yi ci wàllu lekkool bi euh, jànguñu wala jànguñu jàng ba ca waar li ko waral mooy ñi nga xam ne ñooy seen ay musa di seen maître ñoom nag euh, tam fan yëpp dañoo nekkoon ci ab gera bu taratar loolu tax ba fan yëpp daanaka jànguñu loolu nag ñi nga xam ne ñooy askanu Bambey nga xam ne mooy waajur yi rawatina ñoom ñu ngi koy naqar lool di ñaan nag ñi nga xam ne ñooy ñii di jàngalekat yi ak gouvernement bi ñu ànd juboo ndax it nag lu ci mën di lor daal seen doom yi ñoom ñoo ci lor loolu nag ki nga xam ne mooy Mamour Gningue dugg na ci dëkk bi wax ki nga xam ne askan bi rawatina waajuru ndongo yi dégg ko mu ci ànd ak Malick Ngingue. école Sénégal bëri na jafe-jafe lool jamono ji ñu toll tax na waajuru ndongo yi am tiitaange bu rëy ci lu soxal seen ëllëgu doom ñuy ñaan rekk njiitu réew mi mu daal di defal jàngalekat yi lu ñu bëgg ngir élèves yi mën a delluwaat si l'école yi. waaye am naa droit wax ci mais dama naan gouvernement bi na naxanteeg jàngalekat yi waaw pour ñoom ni naxanteeg ñoom pour booy mën dem école jàngi parce que gouvernement bi ak professeurs yi ñoo ànd. ndax kii di borom réew mi ginnaaw yor nay dongom te am na lu mu leen luñ koy topp bu xoolee ba xam ne am na lu mu ci mën a def ba mën a jubóom ñoom waxtaan ñoom ah mu defal leen ko xale yi bañ a tardé ci beneen wàll ñoom waajuru ndongo yi ñu ngi wéy rek di ñaax ñi nga xam ne itam ñooy jàngalekat yi ñu jàpp ci mbir mi te xam ne seeni doom ak seeni i jërbaat rek la jàngal si l'école yi dañuy ñaan ñoom ñu bàyyi grève parce que gouvernement bi def na effort comme def na effort bi nga xamee ne bon liñ doon laaj genn wàll gi liñ ëpp joxe na ko la ca des kon jàngalekat bi ñoo war muñ te xam ne seen i doom la ñu yor seen i jabar seen i seen i sët. Euh, day doylu kenn ku nekk la la yàlla sédd yàlla dafa am ñoo xam ne dañuy sédd ñuy jàngale am ñoo xam ne dañuy sédd liggéey. ñoom tamit dégg nga jàngale wuñu am cër boo ah, ah, mu doon mbir mu doy waar bu mën a jur ay gàllankoor ci lu soxal ëllëgu ndaw yi buñ ci saakul ay pexe ci lu gaaw. jërëjëf Mamour ñu wax ci leneen wax ci àddu jëmale ci wàllu politique dem fële ca diwaanu Ngoy foofu nag am na kuréel goo xam ne ñu ngi ko dippee mouvement pour la rénovation de Ngoy foofu nag daal ñoom ñu bëgg gannaaw ba nga xam ne bokkoon nañ ci élection yi gox-goxaan yi ñoom nag daal ne nañ ñi ngi defarwaat ngir nag élection yi nga xam ne moom seen kéem la kattan def lu ñu mën ba am ci taxawaay bu am solo Ibrahima Diouf mi nga xam ne moom seen sax ñoom jàpp na ni li nga xam ne mooy euh, lënt-lënt wala ay lëj-lëj ci wàllu suuf dañ ko war a leeral ki ne kin na ci àndal ak mën na ko njaay ji caméra bi ginnaaw bañ jógee ci jongante gox-goxaat yi ñu wees kii di Ibrahima Diouf di kenn ci mbër yi sampoon dëndam ci jongante gox-goxaat yi daan na indi ab jàngatam fii ci diwaanu Ngoy gim sampoon dëndam. woote tey bi dañ doon def réunion d'évaluation waxoon leader yi pour saytu élection yi passé nan la demee nan la doxe sunuy résultat ak rëq-rëq ki nu fi nu yegg si looloo waral réunion tey bi. jàngat yi ni kam tënk nañu ko te nu bëgg bu ñu toogee ca comité ba. parce que xam nañ gox yi nga xam ne dañ faa neew doole xam gox yi am doole danañ saytu li waral neew doole bi nu jéem koo saafara li mayee doole nu fexe noonu ko yokki moom mi Ibrahima Diouf sax nee bu ñuy joxoñ baaraam tuuma njiital bokk moomee bu ngoy bi le mooy ñu xoolaat seen mbir ci wàllu suuf si le muy suuf si lu jara xool la man mii di wax ak yéen bu nu xoolee ngoy ni ci depart commune u Bambey dugge ñaata mètre la ci jël to amul ci benn base bu leer buñ ko jëlee ba fii nuy wax ak yow mënuñu ko wax du décret bu ko wane ndax décret bu dee décret dañ koy signé publier ko mu soog a valable kenn mënunoo woon décret boobu conseil bi passé sunuy conseil nee na ne nan poser question bi au niveau conseil rural au niveau seen conseil nu wax leen suuf si nan lañ ko joxe moo ba fii nuy wax ak nun mënun nu wax suuf si nan lañ ko joxe Ibrahima Diouf mi la sax dajale woon na ay ñoñom ci dibeer gi ñaar fukki fan ci weeru février ngir mën a def bilangu jongante gox-goxaat yi ñu wees ci wàllu tàggat yaram la ñuy wax ma nañ ko wax ci bopp xibaar yi am na stade bu yees peq boo xam ne dalaw nañ ko ni ki talaata ji ñu génn euh, fële ca jam ñaajo di stade bu mucc ayib boo xamante ni euh, ñëpp ko rafetlu foofu nag euh, dina mën a dalal a boobu euh, waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñii bëgg fubal ñoom dañ caa kontaan lool ndax stade boo xamante ne ñoom jàpp nañ lu war a mën a nekk la bu yàgg-yàgg la woon Malick Gningue ma nga foon moo ñu fa teewal ñu teew reportage am stade du Sénégal ñu dippe ko maître Abdoulaye Wade tijji nañ ko talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeram février 2022 dugg ba nag nekkoon lu métti loolu nit ñi rang-rang bu gudd waaye nag dañoo jóge woon ci dëkk bu nekk Bambey sax kenn demul ñu des ñoom yëkkati nañu ay kàddu laajaa ñoo dugg ci biir stade bi lii ñu ngi fii ci watu stade bi nga xam ne moom la président Macky defal sénégalais yi. te defal ko sportif suñu waxee sportif yi nag ñun ministre Matar Ba moo gën a tax ñuy wax parce que moom lañ xam ci sport ba tax tey ñu bëgg sport Bambey jigéen ñeeg xale yeeg paa yi ñëpp bëgg nañ sport ndax Matar tudde nañ ko fa école de football Matar Ba waaye loolu bëri moo tax fu mu dem dañ fay bëgg a dem topp ko gunge ko nii ñu sañ seen yi moom dong moo ko waral kon moom moom leer bi 11 ñu tijji buntu ba ñëpp daal di dugg ambiance ma daal di commencé si biir douzième gaynde ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di artistes kenn buggu da bàyyi mbir ma sa moroom yóbbu ko di ambiance ba cinq heures si ngoon jot ca la président de la république daal di ñëw indi discours ba pare tijji boobu boobule waaye nag ñu tàmbali match boo xam ne match de gala bu neex la woon diggante légende africain yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ancien gloire bu Sénégal jongante boobule sax ku nekk benn bii la dugal sa morom ndaje moomulee ay njiitu réew yu bëri teewoon ko ku ci mel ni Recep Erdogan bu Turquie Paul Kagame bu Rwanda George Weah bu Libéria Omar Sissoko Embalo bu Guinée Bissau waaye nag président bu Gambie Adama Barrow mu nga fa woon waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk footballu Afrique ak footballu àdduna bi yëpp ñu nga fa woon ndax Gianni Infantino président bu FIFA teewoon na fa ak Motsepe bi nga xam ne moom moo jiitee football bu Afrique président de la République Macky Sall lam tëjee ndaje moom moo di bi sénégalais yi moom kon nag dañ ko war a toppatoo ba mu gudd fan lool ka leen fa teewaloon di Malick Gningue ngir Bambey 24 mbokk yi ñu jeexal xibaar ak nga xam ne moom mooy ganu kër gi ni ko waxee woon Gana Mbaye lay doon moom nag moo fi nekkoon ki nga xam ne moom mooy meeru Bambey gannaaw ba nag daal ñàkk meer ba ci kanamu kii di Assane Dia moom Gana Mbaye yàq na waxtaan bu yaatu yaatu moo euh, kii di Babacar Diouf dikkaat na ci kalaa bi nga xam ne kalaame woon na ko euh, recours boo xam ne defoon na ko ngir nag bañ a d'accord ci résultat yi nga xam ne génn na ci élection yooyu la wax na itam ci li nga xam ne moom mooy euh, Assane Dia ak ñoom dugg ci bureau ba daj yi nga xam ne moom mooy ay yenn ci ay tiroir naqar ñor na ko loolu dañuy teewlu Gana Mbaye waxtaanam ak Babacar Diouf. ñu dem ca buntu mairie ba dajji ko dugg ca ndax loolu noonu la demee wala yow am na looy wax ci. Euh, waaw loolu nag ñun dañ koy ñaawlu rek parce que demeewul noonu parce que ku ma xam xam ne man duma dox ci yooyu c'est vrai que wootante nañ téléphone am na benn moment jotante wu mais am na benn moment jotante nañ ba waxtaan euh, ba ñu njëkkee waxtaan muy ci àllarba. Euh, ñu waxtaan ñu ne nañu jàpp def passation de service bi àjjuma wala altine fekk man ma nekkoon ci ay yitte Dakar bi ñuy defee lool arxemes ci suba mu envoyé ma moom Assane benn message fekk sama téléphone takkul bi ma jotee message ci ngoon mu def ci ne dama bëgg ñu def ko suba suba àjjuma parce que altine ak talaata du ma nekk Bambey euh, euh, ñëpp xam nañ ne passation de service dafa laaj benn document boo xam ne nii secrétaire moom moo koy defar mu nekk procès verbal euh, bi ma jokk ak sama secrétaire mu ne ma àjjuma bi du mën a possible bi ma jotee message am ci ngoon ma tontu ko ma ne ko àjjuma bi eh, du mën a possible mais comme altine ak talaata doo fi nekk da am ay yitte. te man aussi nekkuma fi nañu jàpp passation bi àllarba 23 muy comme bésu ni tey à 11h loolu lañ mujjee wax ak ñoom ginnaaw bi nag altine lañ ma woo ne ma ah, ñoom kat ñëw nañ mairie euh, di dajji port yi dugg sama bureau ak huissier de justice euh, dugg ci yeneen bureau yi changer euh, serrure yëpp yóbbu caabi yi te passation de serment te loolu si dañ koy ñaawlu parce que bureau nit bureau la mën na fa ay documents administratifs yu mairie mais mën na fa am aussi ay documents personnels kon li gën a rafet ci suñ diggante bu fekkente ne ñun ñëpp Bambey moo ñu tax mooy nit ki nga ñëw ñu defal la passation de service ki nga xam ne moom moo fa nekkoon la mu fa yore ci ay documents mu mën koo jël parce que mais nag euh, dañu jàpp ne rek xaj na euh, communication la buñ doon def. parce que xëy na altine bi ñu ko def jàppoon nañ ne talaata le recours bi di génn te il faut que ñu victimiser wu ci population yi pour que bu recours bi génnee favorable leen ñu mën a euh, utiliser population yi ci seen cause pour que ñu mën a toog dénoncer di wax ne dañ leen a jaay doole ak aussi euh, communication noonu la dem parce que ñun quand même am nañ expérience tuuti ci politique pratique yooyu xam nañ ko moo tax euh, nekkul problème ci ñun mais li wóor daal mooy ne passation de service boobu ñu ngi ko programmé woon tey jii à onze heures te wax nañ ci ak ñoom wax naa ci ak moom le maire Assane Dia wax naa ci ak le deuxième adjoint du Sène te yéen ñi bi ngeen fi ñëwee am na lu ma leen woon lu prouve ne lool échanger naa ci ak ñoom. ndax da leen topp ci li ñu daj leen topp ci yooyu. Euh, dañu jàpp ne seen xel moom moo ñu toll euh, et que Bambey tànn leneen lu dul toppante parce que dëkk la boo xam ne nii am na liggéey buñ ci tàmbali bi ñu fi nekkee am na liggéey buñ fi jot a def euh, def ko ci suñuy man mënu bopp def ko ci jàppale bu ñu suñuy partenaire Baobab de France jàppale ci wàllu njàngale ak wàllu wër yaram def ko aussi ci projet yoo xamante ni nii projet état la loolu aussi dañ ci sant ak di ci gërëm son excellence le président de la république mi tax ba Bambey tey am na FERA am na UCG euh, am na PACASEN donc ndox mu neex bi nga xamante ne nekkoon na calvaire ci ñëpp yàlla def mu am stade bi nga xam ne nekkoon na préoccupation jeunes yi ñu commencé di ci liggéey di leen ñaax aussi ne buñ ci am benn tiit incha allah nañ leen ko waxee woon stade bi dina continuer ba balaa nawetaan nañ ci mën a compétir te loolu yëpp buñ ko mënee euh, c'est grâce à son excellence le président de la république liggéey yooyu nag def nañ ko mais taxul lépp mat. kon bu amee ñeneen ñu ñëw continuer liggéey bi je pense que li nga xamante ni nii mooy urgence te ñu ciy xaar ñun ñëpp doomu Bambey mooy ànd nekk benn pour que ñu mën a continuer lool pour que Bambey nekk dëkk boo xamante ne nii la dëkk bu développé la te je pense que loolu la ñuy gën a xaar que ni yéeg ak wàcc ak di toppante en tout cas def nañ ko mais ñun jégal nañ leen merci. jërëjëf Babacar Diouf ci waxtaan am solo ak euh, ki fi nekkoon maire di gànnaamay Mbaye mbokk yi lii moo fi nekkoon ci ay xibaar euh, di leen ñaanal jàmm te di ko sakku ci yéen euh, di gërëm baax Ndongo Ndiaye bi newoon ci caméra bi Abdou Fall moo newoon ci cordination bi ma leen jox di rek benn yoon ci yenn xibaar yi ñeen ay bés bi jërë ngeen jëf.